الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki jullit yi noo ngi dellu si ci jotaay yi ñu amoon ci téere bii di thalathatil usul bu cheikh al islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala ci jotaay bi weesu ñu taxawoon ci ñetti masala yi nga xam ne nii wax na ne dafa war ci jullit bu nekk moo xam góor la walla jigéen la mu xam ko mu xam ko waaye mu jàng ko ak di ko jëfe ñu jëloon li nga xam ne mooy masala bi jiitu taxawoon sa tey ci bindu tey bii ñu war a jël ñaareeli masala ci ñetti masala yooyee ba mu waxee ne althaaniya an allaha laa yarda an yushraka macahu axadun fi cibaadati laa malakun muqarab wala nabiyun mursal waddalilu qawluhu tacaala wa anna almasaajida lillahi falaa tadcuu maca allahi axada masala bi nga xam ne dafa lëkkaloo ak masala bi ko jiitu ndax masala bi ko jiitu ba mu waxee ne jullit bi war naa xam li tax yàlla subhanahu wa taala bindu ko mu xam ne bindu ko rekk di ko wërsëgal bàyyi ko noonee waaye daf koo bind daldi yónni ab yenente yenente boobee ñu war koo topp képp ku ko topp dugg aljana waaye képp ku ko moy dugg sawara kon objectif bi bu mag bi tax yàlla subhanahu wa taala bind mbindeef yi mooy ñu jaamu ko waaye jaamu yàlla googee ñu ko war a jaamu nan la war a mel gan façon jaamu yàlla la ndax ñi wootewoo ak jaamu yàlla bari na waaye ndax jaamu nga ñuy jaamu borom bi subhanahu wa taala jaamu googee la gërëm ci ñoom ak lool la leen digal masala ñaareel bi ñëw di leeral loole mu ne al masalatu thaniya kon ñaareel masala bi mu ne ann allaha la yarda an yushraka maahu ahadun fi ibadati mooy ne borom bi subhanahu wa taala du gërëm du nangu ñu koy bokkaale ci jaamu gañ koy jaamu gannaaw ba ñu xamee objectif bi tax mu binduñu te mooy ñu jaamu ko dafa war a nekk jaamu yàlla joo xam ne moom kese lañ koy defal moom borom bi subhanahu wa ndax moom yàlla subhanahu wa moo def lu kenn deful moo mel lu kenn melut moo jaar ñun fa mu jaar ñun ba ñu yegsi fii mu digal ñu daldi ñuy tere kon moom kese moom moo yeeyoo jaamu googee du nangu mukk du gërëm mukk jaamu googee ñu koy jaamu di ko ci bokkaale ak keneen ku dul moom borom bi subhanahu wa taala leneen moo tax saa su ne yàlla subhaanahu wa taala di fëddali loolee ci alquraan waxoon na ni wa laqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna camaluk wala takunanna min alxaasiriin te kan la wax loolee mu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko yow yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa wàcce nañ ci yow li nga xam ne mooy wax waxyu wax nañ la ne yow ak ñi la fi jiitu woon ci ay yenente ne bis boo bokkaale ak yàlla subhanahu wa say jëf dina neen yàlla dina neenal say jëf te dinga bokk ci ñuy perte waliyaadu billah yàlla waxaat ni walaw ashrakuu la xabita anhum ma kaanu yacmaluun ci suratul an'am bi mu limee ab lim bu takku ci ay yenente taggaleen wax seeni mbaax bokk na sa la mu tëjee ay yooyee mu ne walaw ashrakuu la xabita anhum ma kaanu yacmaluun yenente yooyee li baax baax baax ak lépp lu ñu am ci ay ngëneel bis bu ñu bokkaale woon ak yàlla subhanahu wa seen jëf dina neen maanaam seeni jëf dina yàqu kenn dootu ko considéré kon li nga xam ne mooy jaamu yàlla deesu ko tuddee jaamu yàlla lu dul bu àndee ak wéetal yàlla jaamu yàlla saa su ne dafay àndal ak wéetal ko moom yàlla subhanahu ci jaamu giñ koy jaamu comme ni nga xamee ni julli deesu ko tuddee julli lu dul bu àndee akuk laab nit ki faw mu laab te laab googu muy laab ngir mën a julli dafa am ay mbir yoo xam ne bu ko defee laab googee day toj loolu ñu tuddee lii toj ak laab lii toj ak laab ba bu defee mbir yooyee laab ga day dal di toj dootul amati ak laab ba munu saa munu la julli munu la def mbir yi nga xam ne chart la ak laab chart la ngir nga def ko ngir ñu mën la ko nangul si ay jaamu yàlla comme lu mel ni julli walla wër kaaba gi wala yu mel noonee noonee la jaamu yàlla mel bokkaale dafay ñëw di ko toj dafay ñëw di ko yàq nit ki bu jógee ngir jaamu yàlla subhanahu wa bu tàbbee si li nga xam ne mooy bokkaale bokkaale googee dafay ñëw màbb jaamu yàlla googee neenal ko yàq ko loolu tax yàlla subhanahu wa taala alxuraan saa su ne muy lëkkale diggante digle li nga xam ne mooy jaamu yàlla waaye wottu li nga xam ne moom mooy bokkaale di shirk ci ay yu bare bare bare bare ci alxuraan bokk na si ay yooyee comme ni ko Cheikh Saleh di alfawzaan xafidahu llahu taala limee ci charamba mu ne bokk na ci aaya la yàlla subhanahu wa taala wax wacbudu allaha tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara mu lëkkale diggante jaamu ko moom yàlla subhanahu wa taala waaye bañ koo bokkaaleeg dara suratul nisa mu waxaat ni wama umiru illa li yacbudu allaha muxlisiina lahu ddiina xunafaa ñoom day digaluñ leen lu dul nanu jaamu yàlla subhaan nañu jaamu yàlla subhaanahu wa waaye ñu sellal ko jaamu googee jaamu giñ koy jaamu mu sell maanaam ñu bañ sa boole keneen ba leneen dañuy tuddee bokkaale yàlla subhaanahu wa waxaat ni wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun yàlla ne yónniwuma ci ñi la jiitu yow yenente bi sallallahu alayhi wa benn yenente lu dul ne dañ ko daan wax yu dañ ko daan wax ni nañu jaamu yàlla subhanahu wa ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul moom yàlla subhaanahu wa kon na nangeen ma jaam man yàlla mbooleem yenente yi yàlla subhaanahu wa taala la leen digaloon loolu la leen waxoon ci aaya bi mu ne an laa ilaha illa ana faabudun dajale ñaar yi ndax lii di laa ilaha li muy firi mooy dàq mbooleem lu ñuy jaamu loolee dàq la dàq ak weddi lépp lu ñuy jaamu illallah di saxal maanaam excepté dal di saxal ak jaamu ñeel yàlla subhanahu wa kese kon ci aaya ak yeneeni i aaya wa qada rabbuka alla taabudu illa iyaa yàlla sa boroom subhanahu wa taala atte daal di dogal daal di waral ne kenn bu kenn jaamu keneen kur yàlla subhanahu wa ne bu leen jaamu leneen lu dul moom borom bi subhanahu wa taala mu waxaat ni wala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu taaguut yàlla subhanahu wa taala nee na yabal na yónni na ci xeet wu nekk ab yenent ab ndaw boo xam ne la mu daan wax mooy jaamu leen yàlla subhanahu wa taala te wottu lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla subhaanahu wa taala mooy képp ku ñuy jaamu walis borom bi subhaanahu wa te mu gërëm jaamu googee kookee taaxut la képp ku ñuy jaamu ku dul yàlla subhaanahu wa te mu nangu jaamu googee loole mooy taaxut ci aay yooyu yëpp yàlla subhaanahu wa taala lëkkale li nga xam ne mooy jaamu ko ak wott li nga xam ne mooy bokkaale waxaat na ne fa man yakfur bi taaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisaama laha képp ki nga xam ne nii weddi na li nga xam ne mooy taaguut te mooy lépp lu ñuy jaamu walis borom bi subhaanahu te mu nangu jaamu googee képp ku ko weddi daldi nag gëm yàlla fii nga gis ci aaya bi dafa jiital sax li nga xam ne mooy eh, weddi li nga xam ne mooy ab taaguut maanaam dafa jiital ak sellal ak setal ba noppi daal di saxal comme li laa ilaha illa allah di firi loolu aaya bi bokk na ci aaya yi firi laa ilaha illa ndax laa ilaha mooy dëppoo ak fa man yakfur bi taaguut illa allah di firi wa yu'min dangay daldi setal ba noppi daal di sellal daal saxal ne yow jullit doo jaamu kudut yàlla subhaanahu wa taala daal nag saxal li nga xam ne mooy ak jaamu yàlla ñeel yàlla subhaanahu wa kese loolu tax ca Saalih Al-Fawzaan xafidahu llahu taala mu ne fal imaanu billahi la yakfi illa maa al kufri bi taagut kon di wax ne rek gëm naa yàlla gëm naa yàlla du doy mukk lu dul ko koy wax dafay nangoo weddi mbooleem lu ñuy jaamu walis yàlla subhanahu wa ne ndax bokkaalekat yi dañuy woote ak ngëm yàlla subhanahu wa taala bal borom bi subhanahu wa taala wax na ni wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuun doo fekk mukk ñu bari ci ñoom ñuy woote woo ngëm yàlla loolu danga leen di fekk ñuy bokkaale maanaam ñuy woote woo ngëm yàlla ba noppi ngay fekk ci ñoom ay bokkaale loolee lu am la lu bari la ci nit ñi yàlla daal di leer leeral ne ñoom dañuy woote woo ak ngëm yàlla waaye ngëm yàlla googee dañ koy yàq ci bokkaale ko moom borom bi subhanahu wa taala te bokkaale googee bu xësee ba ñëw rek dafay dàq li nga xam ne mooy lañ doon wootewoo te mooy jaamu ko dafa nekk ñaar yoo xam ne duñu ànd duñu ànd bokkaale fu fu mu ñëwee rek màbb na jaamu ga muy jaamu yàlla subhanahu wa taala ak li yàlla subhanahu wa taala bëgg ci yow si sellal ga bokkaale boobee dafay ñëw di ko yàq mën nañ ko tuddee anti jaamu yàlla maanaam dafay ñëw di ko weddi di juyoog moom loole la euh, boroom téere bi wax ci masala boobee ne nga xam ne dafa taxaw ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala te mooy masala bu njëkk bi ak topp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi jaamu googee dafay mucc ci li nga xam ne moom mooy bokkaale ndax li waral loolee mu ne li anna allaha la yarda an yushraka maahu ahadun fi ibaadati ndax yàlla subhanahu wa du gërëm mukk du nangu mukk ñu koy boole keneen ci jaamu guñ koy jaamu loole di dëggal li yàlla subhanahu wa taala xadis qudsi yenente bi sallallahu ko wax ni ne borom bi subhanahu wa na ana agna shurakaai an shirk man amila amalan ashraka maci fihi gayri taraktuhu wa shirka mu ne yàlla subhaanahu wa taala nee na moom moo gën a woomal gën a doylu ci bokkaale yàlla subhaanahu wa taala soxlawu ko mu ne képp ku jëf aw jëf waaye ci biir jëf googee nga boole ci yàlla ak keneen yàlla dalay bàyyeeg loolee nga ko boole bàyyi na la ak loolee set na ci wicc ci jaamu googee soxlawu ko am na aw nit ñoo xam ne dañuy wax baati seede yi di wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah di jullee ko woor di aj waaye nga fekk leen ñu jublu ci ay bàmmeel di fa ñaan waaye di walla di woo diw ak diw di ko jaamu sàkk ak wallu ci ay nit ñu faatu nit ku nekk ci xat-xat nekk ci jafe-jafe nga gis muy woo keneen ku dul yàlla subhanahu wa mbir yooyee ñuy def dafay màbb jaamu yàlla ya ñu daan def jiitaloon ko moo xam koor la wala julli la wala aj la mbooleem jaamu yàlla bokkaale yu rëy yii dafay ñëw di ko màbb ndax comme nuñ ko jiitale woon léegi mooy ne lii di bokkaale dafa ñëw di ju juyoo ak jaamu yàlla subhaanahu wa taala daf koy yàq daf koy màbb mi ngi mel ni rek ku yor semmiñam ñëw di gor maanaam la nga taxawal ba noppi nga màbb ko garab ga nga jëmbatoon suuxat ko ba mu dëgër nga ñëw jël sab semmiñ daldi topp ci taat wi di gor ba garab ga daanu shirk fu mu ñëwee dafay màbb li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla kon loolee lu jara bàyyiloo xel la donte ne dangay fekk ñi ñenn ñi ci ñoom di layoo na ñii ñuy woo mbaa ñii ñuy tudd ñun dañ leen jàppee rek intermédiaire sunu digganteeg sunu boroom subhanahu wa taala ñoom ñoo ñuy jegeel yàlla subhanahu wa taala ñoom ñoo ñuy yóbbu ñun jaamuwuñ leen waaye dañ leen di woo rek cheikh saalix xafidahu llahu taala dafay wax ni loole mooy même cause bokkaalekat yi ceddo yi bu njëkk comme nañ ko yàlla subhanahu wa taala nettalee ci alquran ne ñii ñun jàppewuñ leen lu dul ngir ñu ràmmuñu ak ñu jegeel ñu yàlla subhaanahu wa taala ñun jaamuwuñ leen yàlla weddi leen ci loolee maanaam si jëf joojee ñu daan jëf ndax yow jullit bi soxlawoo intermédiaire sa diggante ak sa boroom subhaanahu wa sa diggéen diggante ak yàlla subhaanahu wa dafa war a set wicc jublu gi ngay jublu ci yàlla subhaanahu wa nekk direct nga koy woo bañ a dugal kenn sa diggante ak kum mën ci doon loo tax sax boroom téere bi teg ci ne laa malakun muqarrab wala nabiyun mursal kookee ak lu mu baax baax baax baax baax baax même bu fekkee malaaka bi gën a jege yàlla subhanahu wa taala mel ni jibril alayhi salaatu wassalaam ak malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo yanu arashi borom bi subhanahu wa taala gën si malaaka yi li ñuy jege yàlla yépp ak li ñuy baax yépp deesu leen def intermédiaire sunu diggante ak sunu borom subhanahu wa taala deesu leen jaamu deesu leen ñaan deesu leen woo képp ki nga xam ne tey dafa jëloon jibril mbaa jël malaaka bu jege yàlla subhanahu wa ku baax di ko woo ak di ko def sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala bokkaale la dafay daal di màbb say jëf waliyasu billah wala nabiyun mursal même bu fekkee ab yenente la bu yàlla subhanahu wa taala yónni bokkit kadalika ñi gën ci mbindeef yi ku mel ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbaa isa wala nuux wala ibrahim ñi nga xam ne ñooy ulul azm min ar rusul ak muusa ñooñee li ñuy baax baax baax baax baax ak li ñuy jege yàlla jege yàlla subhanahu wa taala duñ leen def sunu digganteeg sunu boroom subhanahu wa taala ci di leen woo mbaa di leen jaamu riyaadu billah ndax yàlla subhanahu wa du gërëm ñu koy bokkaale keneen ku mu mënti doon ku mu mënti doon moo xam malaaka la wala ab yenent la wala nit ku baax la waliyu la wala ku mënti doon dañoo am seen wàccuwaay ñu yemale leen seen wàccuwaay wi leen yàlla subhanahu wa wàcce am loo xam ne àqu yàlla la subhanahu wa mooy jaamu ko ñu defal ko ko moom yàlla subhanahu wa jox ko li nga xam ne mooy àqam ak gëddam bañ saa dugal keneen walis borom bi subhanahu wa yurul ñu baax ñooñee di malaaka ak yenente yaag wali yu yeeg maanaam walis ñooñee maanaam waxi noppi duñ leen jaamu bu fekkee fii dañoo wax ne duñu jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala bu doon malaaka yi gën a baax wala yenente yi kon ku dul ñoom waxi noppi kenn du leen jël di leen def sunu digganteeg sunu borom subhanahu wa comme niñ ko junjee woon léegi ni ceddo yi daan waxee ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñii day ñun jaamuñ leen du dul ngir ñu jegeen ñu yàlla subhanahu wa ndax ñoom même ceddo yi dañ daan fas gëmoon nañ ne ñii duñu wërsëgal binduñu reyuñu dundaluñu xam nañ loole ñoom gëmoon nañ ko waaye li doon seen problème mooy ne mënuñoo yegg ci yàlla subhanahu wa taala direct sans ñii ñii la jël def leen suñu digganteeg suñu borom subhanahu wa comme ni nga xamee ne tey ñiy jublu ci bàmmeel yi di fa dem pas-pas boobu lañu am ci ne man mënumaa yegg ci yàlla subhanahu wa taala direct ci jublu si moom ak di ko ñaan waaye faw ma jaaree ko ci diw fawuma jaaree ko ci diw waliyaadu billah loolee mooy nafsu xujjatul mushrikiin maanaam lay wi nga xam ne moom la bokkaalekat yi bu njëkk daan layoo mooy même lay woowee lii borom téere bi wax fii nag ci masala bi di ñaareelu masala bi nga xam ne mooy ne jaamu yàlla subhanahu wa ko nangu lu dul bu sellee nekkal yàlla subhanahu wa kese bañ ko saa bokkaale kenn mbaa mu ne la say tegtal comme nañ ko junjee woon saa su lu mu la wax tegtal yi dina la ko wax ci alquran ak ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa alihi dalika waxi mag ñu baax ñi nga xam ne ñooy as-salafu saalih di saxaaba yi ak ña topp ci ñoom mu ne lii kon la say tegtal wa dalilu qawluhu taala wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada ci sootul jinn yàlla subhanahu wa taala ne li nga xam ne mooy jàkka yi di néegi yàlla subhanahu wa taala mu ne yàllaa ko moom wa anna al lillah néeg yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa digle ne nañ ko taxawal di fa di ko fa tudd moom yàlla subhanahu wa taala fi buyutin adina allahu an turfa wa yudkara fiha ismu ay néeg la yoo xam ne yàlla digle nañ ko taxawal nañ ko yëkkati waaye di ko fa tudd moom yàlla subhanahu wa kon yàlla moom néeg yooyee di jàkka yi kon dafa war a nekk ay barab yoo xam ne barabi jaamu yàlla moom kese kenn du fa def leneen lu juyoog jaamu yàlla subhanahu wa mbaa ñu fay woo keneen mbaa ñu fay jaamu keneen kenn du fa tabaxi bàmmeel ndax yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rëbb na ñiy def loole ñi nga xam ne dañuy jël jàkka yi def fa ay bàmmeel mu waxaat ni loole bokk na ci jëfi yahud yeeg nasaraan yi maanaam juif yi ak chrétiens yi ñoo baaxoo loolu mu daldi tere loolu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bal bokk na ci baat yamu mujjee wax ci dundam la mu mujjee moytuloo xeet wi bokk na sa ba mu waxee ne alaa inna man kaana qablakum kaanu yattaxiduuna alqubuura masaajid mu ne ngel la waay ñi leen fi jiitu woon dañ daan jàppee li nga xam ne mooy ay bàmmeel jàppee ko ay jàkk li loolee li muy fii maanaam jël bàmmeel jàppee ko jàkk mooy di fa def lañuy def sa jàkk di fa julli mbaa di fa tudd yàlla mbaa di di fa ñaan keneen ku yàlla subhanahu wa taala waliyaadu te lii mën ko wax moom yonente bi sallallahu alayhi ba muy génn àdduna mi ngi ci ay waxtoom yu mujj di waaj a génn àdduna mu ne alaa falaa tattaxidu alqubuura masaajid fa inni anhaakum an dalik mu ne ngeen la waay bu leen jàppee bàmmeel yi ay jàkka ndax tere naa leen lool mu waxaat ne laanatu llahi ala alyahuudi wannasaara ittaxaduu qubuura anbiyaihim masaajid rëbbug yàlla ñeel na yahuud ak nasaraan yi juif yi ak chrétien yi yàlla rëbb na leen ndax dañoo jàppee seeni bàmmeel yi ay yenente ay jàkka seen yenente ya seen nit ñu baax ña bu ñu faatuwaan ñoom yahuud ak nasaraan yi dañu jël seen barab yooyee def ko ay jàkka ay jaamukaayu yàlla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko xeet wi tere leen ko kon lii nga xam ne mooy jàkka yi dañ ko war a setal si lépp loo xam ne mooy jeexiti bokkaale ak jaamu ku dul yàlla subhanahu kenn du fa defi bàmmeel wala ñu fay suul ay néew ndax barab yi jaamu yàlla subhanahu wa taala comme ni ko yàlla subhanahu wa waxee fii wa anna al masajida lillah kookee ñu fay suul moomul jumaa ja moomul jàkka ja yàlla waxul ne wa anna al masajida li fulaan wala li illaan même bu fekkee ku baax la woon même bu fekkee moo tabaxoon jàkka joojee mbaa mu tabax jumaa joojee mbaa lu mu mënti def ci kaw suuf si ak mbaax bu faatoo jàkka joojee mbaa jumaa joojee nañ ko bàyyil yàlla subhanahu wa kese jël ko moom rob ko fa ñuy rob ñi faatu muy armeel ya kon ñu bàyyi jàkka ji ngir yàlla subhanahu wa kese wa anna al masajida bu boobaa fala tadcu maa allahi axada ñay ñëw sa biir jàkka ja ak ñay ñëw sa jumaa ja di jaamu yàlla subhanahu wa yàlla kese lañuy jaamu di ko woo duñ fa jaamu keneen ku dut yàlla subhanahu wa taala di ko fa tudd ak di jàng alquran ak di fa taxawee li nga xam ne mooy lépp lu jëm ci jaamu yàlla subhanahu wa ak tudd ko yàlla ne fala tad'u laa joojee la tuddee laa giy tere ci làmmiñu arab mu teg ci ne ahada li boroom xam-xami maani yi di wax ni nakira fi siyaaqi an nahyi fa taum maanaam ahadan nakira la maanaam dañ koo boyal ci ne mbooleem ku ñuy jaamu ku dut yàlla subhanahu wa taala day dugg ci wax ji buleen fa jaamu keneen ku dut yàlla subhanahu wa taala ak kum mënti doon ak lu mu doon loolee la wax ji di firi loolee la wax ji di firi ci làmmiñu arab kenn du ci seppi kenn comme niñ ko jiitalee du malaaka du yenente di nit ku baax du xërëm du sëri du kenn kenn du fa jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa yàlla di jàkka yi comme kon yàlla subhanahu wa taala ku bëgg ak wéetal la ci jaamu ngañ koy jaamu bis boo defee leneen lu dul loolee subhanahu wa taala set na wicc si jaam googi génn na si comme nañ ko jiit la woon ci xadis qudsi ba ne bis boo jaamoo yàlla subhanahu wa wëlbatiku jaamu keneen ku tudd yàlla subhanahu xamal ne jaam googee yàqu na boobee moom yàqu na dafay daal di màbb ay jëf ba li nga xam ne mooy bokkaale yu mag yi di shirk al akbar mbooleem loo jëfoon da koy daal di mab waliyaadu billah tax mu màgg yàlla subhanahu wa taala màggal ko lool ci téeréem bi kadalika yenente ko lool jullit bi war koo màggal ci xolam war koo jox yitte ju rëy looloo tax borom téere bi indi ko ci ñaareelu masala gannaaw ba mu leeralee ci masala bi njëkk ne jullit bi gëm gi muy gëm ne yàllaa ko bind di ko wërsëgal Euh, ak xam gi muy xam ne bind gi ko yàlla bind ak di ko wërsëgal dafa am objectif bu tax bind ko rek ngir muy lekk kanaan mbir yi jeex waaye dafa yónni ab yenente waral si ñun ñu topp ko topp ko googe ñu koy topp mooy jaamu yàlla subhanahu wa moo ñuy wan ni ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala ak di ñu ko jàngal mu ñëw si ñaareelu masala bi daal di féddali ni jaamu googee day bàyyi xel bu baax dafa war a sell dafa war a set wicc ngir yàlla subhanahu wa taala keneen bañ see am wàll mbaa leneen ndax boo ko deful rek du am njëriñ dafay dal di yàqu liyaadu billah te bu boobaa perte ah, moom nga say jëlee bu fekkee yenente yu baax yële la yàlla wax loole comme nañ ko waxee woon sa aaya ah, walaqad uxiya ilayka wa ila alladina min qabli in ashrakta la yaxbatanna wala takunanna min alxaasirin bu fekkee ay yenent la yàlla wax loolee kon eh, ñeneen taxul ñuy wax da ngay daal di perte àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala musal si li nga xam ne moom mooy bokkaale eh, wërsëgal ñu li nga xam ne mooy wéetal ko si jaamu giñ koy jaamu te saxal si taxal ñu si loole ba keroog ñu koy wuy ji wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain